parce que actuellement ku xam université moom xam ne depuis presque le premier juin ba léegi université euh, dañ ko tëj euh, léegi aussi ñu imposer étudiants yi à ce à ce ñu def cours en ligne to ku xam université aussi xam ne cours en ligne nekkul loo xam ne euh, dafa méngoo ak li nga xam ne mooy mooy les lu de l'université Cheikh Anta Dakar mm-hmm. donc euh, li nga xam ne xew na fa euh, ñun ñaalu nañ ko xam nañ ne instant bi tamit nekkuloon loo xam ne dañ ko doon xaar ci université mm-hmm. mais bi boobu amee aussi conseil académique bi nga xam ne mooy tënk les chartes de l'université dafa toog wax ne instant bi euh, cours yi mënatul am en présentiel il va falloir ñu def cours en ligne mhm. ñun amicale yi ñu ne cours en ligne mënul am parce que xam nga lu tax cours cours en ligne mënul am waxuñ ko pour wax ko rek mais dafa am les réalités du pays nga xam ne du pays yoo xam ne tey buñ ko bu ñu defee cours en ligne euh, tey étudiant bi nga xam ne nekk na ci village boo xam ne amul courant du mën a suivre les cours en ligne ki nga xam ne nekk na ci dëkk boo nga xam ne instant bi amul réseau aussi du mën a mhm. ñu ne nañ def tout au moins tey ñu ñëw def cours en présentiel pour mun a sauver année bi léegi bu ñu defee loolu ñoom ñu ne loolu mënul am léegi nag loolu euh, moment boobu noonu amoon na rupture entre ñu ak autorité universitaires yi léegi bu ñu demee demaat ñu woot ñu woowaat leen ñu toog ñu waxtaan parce que ñun étudiants yi ñoo leen woo pour ñu ñëw toog mais ñoom ñoom pare woon sax pour ñu toog ak ñoom léegi ñu woo leen ne leen ñun instant bi nii gis nañ ni université tey moment buñ toll eh, warul am année balance warul am aussi année invalide donc il va falloir ñu toog xool eh, les meilleures euh, solutions ñu jël leen donc bu ñu toogee ak ñoom ñu waxtaan wax leen ne ñun nañ def le tout pour li nga xam ne instant bi moom amoon ay yàqu-yàqu ci campus pédagogie amoon ay yàqu aussi ci campus social ñu mun koo réparer pour université moo ñëw ubbi léegi ci looloo ñu waxtaan ak ñoom mais gis nañ ne autorités yi ñoom pare woon pour ubbi université bi euh, demoon nañ sax boo euh, signé un protocole d'accord boo xam ne ñoom comme ça dañu jël les cours euh, dugal ko dans la plateforme pour étudiant bi nga xam ne euh, soxna les cours mu mun koo récupérer pour mun a jàng. Mhm. léegi aussi dans tout ça protocole bi amoon na aussi li li ñu am euh, lu ñu wax remédiation remédiation boo ko déggee maanaam mooy par exemple tey cours bi nga xam ne dañ ko war a def cinq heures de temps. Euh, tey buñ la ko jox buñ ko defee dans la plateforme. boo utilisé boo ko récupéré jàng ko une fois euh, ñu def cours en présentiel dañ koy def dañ koy defaat aussi mais cinq heures dañ ko waroon def day am réduction réduction de. évidemment donc loolu moo nekk li nga xam ne moo tënkoon autorité bi. léegi aussi tey autorité bi wax ne loolu loolu dina am. mais ci protocole bi li nga xam ne moo ñu gënoon intéressé ci protocole bi mooy la date d'ouverture euh, du mois d'octobre autorité bi wax nañu instant bi loolu mënu koo mënu koo dugal ci protocole bi parce que ça c'est la du conseil académique foofu amoon amoon na presque benn lenteur boo xam ne ça a presque quinze jours boo xam ne ñun dañoo bëggoon comme ça Euh, dugal ko ci biir pour au moins ñu mun a signer li nga xam ne protocole bi parce que xam nga autorité politique moom à parfois euh, boo wax ak moom il va falloir nga xool li ngay wax ak moom parce que mun na laa wax a tey def bee def bee suba donc moo taxoon ñu balaa ñuy signer protocole bi date boobu dugg ci biir mais après bu ñu demee ci boo xam ne instant bi autorité bi dañoo dañoo bëgg a divertir pour au moins ñu perdre beaucoup de temps on a accepté de signer le protocole sans cette date waaw parce que moom daf daf ñu waxoon ne euh, am leen confiance ci man que université di mois d' mais bu ñu dem euh, bu ñu signé protocole juste verbalement c'était pas écrit. waay donc euh, léegi ah, aussi bu ñu defee loolu euh, tey pour uniquement ñun étudiants ñu mun a sauver li nga xam ne moo suñu année. parce que ñun autorités yi jànguñu. Euh, euh, nekkat nekkuñ ñoo xam ne dañu nekk université pour jàng mm. mais comme ñun ñoo nekk université pour jàng pour ut li nga xam ne mooy xam-xam il va falloir aussi ñu xool li nga xam ne mën nañ koo def pour sauver année bi pour ñi nga xam ne war nañ a am euh, jot seen diplôme jot seen diplôme ñi nga xam ne war def ay prescription pour voyager ñu def ko léegi aussi bu ñu protocole bi def nañ le tour du pays ça veut que dans quatorze pays dans quatorze régions du pays on a fait le tour on s'était réparti en trois à trois zones ñaa ñoo xam ne dañoo demoon zone zone nord ñii zone centre ñii zone sud donc bu ñu ko defee aussi ñu def presque ay quelques jours ci àll bi pour au moins étudiants yi nga xam ne ñoom euh, tey am nañ ordinateur te muñ dugg dans la plateforme ñu collaborer avec avec leurs amicales local pour au moins ñu remettre leen clé USB yi nga xam ne ñoom dañu am l' ensemble des cours de l'université pour à ce que étudiants bu ñëwee ci amical bi ñu jox leen les cours aussi ñu am les cours qui sont déjà photocopiés ñu dugal leen ci oto yi def ko ci carton pour au moins ki nga xam ne amul machine eh, te amul cours yi ñu jox ko ku les cours gratuits. loolu def nañ ko presque ay quelques jours mais c'était uniquement xam nañ ne c'est très difficile mais c'était uniquement pour ñu pour ñu sauver li nga xam ne mooy année bi léegi bu ñëwee ci octobre ci euh, fin fin novembre euh, fin fin septembre waa dugg octobre euh, donc foofu noonu conseil académique bi réunir waat mais instant bi euh, jusqu'à présent les conditions ne sont pas réunies pour ñu def li nga xam ne mooy cours en cours en bu ñu demee foofu noonu gis nañ ne autorité bi li nga xam ne moom moom la ñu waxoon déjà ci protocole bi defu ko donc tey ñu ñu ne instant bi autorité bi day naxante ñun. léegi aussi il a convoqué le conseil d'administration. conseil d'administration bi nga xam ne moom am na influence ci le com social parce que tey université ku ko xam. xam ne dafa am campus pédagogie am aussi campus campus social léegi nag campus social bi nga xam ne instant moo moo war a loger étudiants yi moo leen war a euh, euh, restaurer campus social boobu aussi euh, conseil d'administration ne mënul ubbi le campus social parce que les conditions ne sont pas réunies il va falloir ñu renforcer la sécurité de l'univers du campus social pour au moins tey étudiants yi mën a ñëw jàng si to boo xoolee ñun depuis le mois d'août on on dañoo woon autorité bi en en réunion ñu nekk instant bi comme war nañoo ubbi octobre te gis nañ ne am na loo xam ne xew na université te mu nekk loo xam ne c'est une faille de la sécurité il va falloir ñu toog pour le pour pour le moment ñu waxtaan ci li nga xam ne moo moo concerné la sécurité de l'université donc bu ko defee avant octobre rek lépp dina mun a normal pour mun a ubbi mhm. donc autorité bi par euh, euh, il était d'accord mais après par la suite euh, pare euh, mu jéem a divertir ak ñun jéem a avancer avancer boobu bu au moins ñu dugg ay mois de mois de mois d' octobre léegi nag instant bi ñu convoqué la ko sa conseil ak conseil d' administration là mu wax ne instant bi euh, moom mënul ubbi université actuellement. pour des raisons de sécurité pour de sécurité. te alors que ñun waxoon nañ leen depuis d'août pour ñu toog waxtaan ci loolu c'est-à-dire que toutes les composantes de l'université c'est-à-dire que les les parties les autorités les les pairs. pour ñu waxtaan ci li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy euh, ouverture bi. Mhm. léegi aussi bu ñu ñëwee le conseil d' administration. Mhm. mu jël décision à ce que moom. il faut il va falloir mu am ñu jox ko deux mois pour au moins mu mun na saytu li nga xam ne mooy renforcement de la sécurité de l'université mhm. léegi deux mois yooyu boo ko boo xoolee on est euh, mois de novembre kii la woon octobre. donc amoon nañ novembre décembre décembre presque le les le ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci mois de décembre donc saabu veut dire que instant bi ci côté boobu noonu décembre mu ngi mu ngi jeex léegi aussi barke démb toog nañ ak autorité bi bu ñu toogee ak moom moom wax na ne mu ngi avancé ci li nga xam ne mooy renforcer la sécurité mu ngi ciy avancé. to mm-hmm. instant comme deux mois la waxoon deux mois yi léegi mu jeex parce que mois de bi moo ci des. Mm-hmm. donc tey instant li nga xam ne mooy wax autorité bi. mooy mm-hmm. tey nga xam ne mooy euh, njàng bi nañ ko jéem a instant bii ni euh, gëstu pour au moins ñu mun a sauver li nga xam ne mooy année université de Dakar. parce que boo xoolee yeneen université ñu ngi jàng mais université de Dakar instant bi gars yi dañ koo tëj pour des raisons politiques te loolu yi ñu mun ñu a instant bi njàng bi lañ mun a am pour mun a servir le le pays pour mun a servir aussi no nos nos parents.